asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp aax te di leen baal te tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal dafa am benn audio bu ñu ma fi transféré woon ni ki démb benn audio de six minutes quarante huit mu am ku ciy wax ku ciy wax nag wax dëgg yàlla comme li may wax tout le temps rek waa ahlu sunna wal jamaa ñoom comme ni ma ko waxee fan yi rek eh, ci seen benn ojo boo xam ne ci seen groupe boobu la ñëw li may wax na waa ahlu sunna wal jamaa soo ci waxee kenn wax nga ak ñëpp te loolu wax nañ ko ba pare ba ci ëllëg sa ñu indi audio bi kii tamit ñëw jaar fa nga xam ne waa ahlu sunna wal jamaa foofu rek lañuy jaar mooy lan mooy di répéter automatiquement li nga xam ne moom lañuy wax ci seen téere te lañuy répété doon lu graw loo xam ne ñoom seen bopp conscient wuñ ci comme li tubaab bi di wax dëgg-dëgg da nga koy mën a ci sunit yi ñoom seen bopp li li li benn tubaab wax ne science sans conscience n'est que ruine de l'âme da ngay gis ne day feeñ bu baax a baax a baax a baax ci ñoom ci naka ndax xam nga nit su fekkee ne da nga jàng dara li nga jàng ay nit ñoo ko wax te nit ñooñu la ñuy wax dañu koy wax ci benn téere di ko wax ci benn diine diine jooju di diine bi diine jooju di diine bi yàlla téere boobu di téereeb yàlla yow lañu la jàngal ay nit ñoo ñëw di ko wax ci téere bi te téere bi moo gën a accessible téere yi ndax téere bi moo gën a yaatu moo gën a bari nga jëm jàng ay téere yu lay wax ci benn téere la lay wax ci téere boobu ñu lay wax nga ñëw tëb gëm ko nga ñëw nag léegi toog ci biiri nit ñu ne léegi dañ lay woo ngir yow nga war a ñëw wax ci ñi nga xam ne dañuy wax ne dañuy dellu ci téere bi ñëwoo def lenn lu dul di répété la ñuy wax ci téere boo maa nga ñëw di répété la ñuy wax ci téere ya ci téere bi te téere bi moom gën a accessible téere yi te lan lañ te yow lañ lay wax ci téere bi ba yow nga am fitu wala audace ñëw di ko répété li tax nga sañ koo répété di ko dëggal mu mel ni loolu ñu wax ci téere yooyu mooy dëgg mooy ñàkk setantal téere bi soo seetantaloon téere bi doo dëggal mukk la téere yi di wax ci téere bi ndax li ko waral mooy lii waral nit ki ñëw di répété li téere waa ahlu sunna wal jamaa yi di wax ci téere bi yàlla lii waral nit di ñëw di ko répété mooy ñàkk settantal téereb yàlla téereb yàlla la ca yàlla santaane di setantal ku ko def ku ne ak ku mën a doon ci kaw suuf munoo dëggal mukk li téere di wax ci téere bi ci xeetu wax yi nga xam ne nag moom la ñuy wax noona te man li ma jaaxal eh, nit ñi dañoo am benn jafe-jafe mooy maa ngi koy wax rek fan yi ci ojo yooyu ma dugaloon foofu gaay bañu len naxé leen naxee ba gëmloo na len diine ji manam xel amu ca wal da wàll dañuy dañuy xelat ta xel moy xelat da bay wax nit ki nak soy xelat nekul ne da ngay créer loolu ñi nga xamne dañuy dellu ci alxuraan ta nek fi ci réew mi amna ci lo xamne ñom min nañ man man ma diko wax ndax amna ci ño xamne mësna ci échanger ak ñom mané len yàlla su waxé setantal ci données yim ñu jox lañu sant ñu seetantal waxuñu ñuy créer ay données yu bees waxuñu ñuy créer ay données yu bees kon yàlla ci lim ñu wax ci loolu la ñuy xalaat waaye waxul ñun ñu créer suñuy mbiru bopp di ca xalaat di ko lënkaleek waaye di ko taqaleeg diine yàlla te yàlla moom borom xel yi yi nga xam ne dañoo gëm ci ñoom la wàccee téere bi mu doon seenuk fàttali ndax wax naa ko ki rek ci ojo boobu fattaqullaha yaa ulil albaabi allazina amanu xadd anzarallahu ilaykum zikra bàyyi leen xel yàlla yéen borom xel yi gëm ndax yàlla wàccee na mu jëm ci yéen ak fàttali léegi nag fexe nañ ba xel moomu ñu ñu dindi ko ci diine gëmloo leen ne diine ji toxal la nit ñi ñoomit ñu gëm ne toxal la ñuy dem di jàngi ñu leen di toxalal ay waxu nit ñoo xam ne seeni xel la ñu jëfandikoo ba noppi ne leen yéen nag bu leen jëfandikoo seeni xel ngeen nangu loola ay nit ñoo xam ne dañ leen di wax ne leen mbir mi xel bokku ci mbir mi toxal la te lañ leen di toxalloo seeni xelaatu bopp la ñoom loolu nag nekk fi bu yàgg ba léegi خلات نيت نيو نيو واخون نمبيري خل بوكو تي مبيري توخال لا واي دو خلات با بار نيوم ني واخ سين خلات ياخال كو سين خلات يوي نك موم لا ني جوكالانت با ليغي نيت ني دي جوكالانت خلات نيو نيو با يكس في ني نا لين سين خلي موم بوكو تي جيل لين تك نالي تا يالا واخ لين تي القران نه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا bu leen topp loo leen amul xam-xam ndax akuk dégg akuk gis akub xel lii dañ koy laaj kon yàlla jox nañu uti muy akuk dégg akuk gis akub xel mooy li ñuy wax intellect ñu war koo jëfandikoo ci lépp lu mu mën a doon ay jamono am na ku fi waxoon fii defoon naa ci sax ab ojo benn nit ma ne man li ma gën a jaaxal maam gis ñu gën a inconscient ñii ñuy tuddee borom xam-xam ci wàllu diine man gisuma ko ci kaw suuf mais nit naka la mën a ñëwee di répéter walla muy jàngale ay wax yoo xam ne moom mi koy wax da ko gëm moom ca boppam te la muy répéter ak di ko jàngale weddi yàlla te moom yëgu ko te moom dañuy maanaam te moom jàpp na na ci diine lay dox te moom jàpp na na ci diine lay wax. ci misal yàlla suné téré bi lér na ay nit ñëw ne téré bi amna lo loo dañ ko fa junj yàlla ne téré bi dafa lér dem ba wax ci bir alquran suratu baqara aaya 99 ne wala qad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wama yakfuru biha illa alfasiqun wàcce nañ mu jëm ci wax ne wàccee nañ mu jëm ci yow ay aayu leer te mën a loolu ñenn duñ ko weddi lu dul faasix yi muy jalgatikat yi mooy ñu olof daan wax lu bare bari saay saay si comme ni ñu ko daan jàngalee bu njëkk waaye li muy firi mooy jalgatikat yi yàlla nee na leeraayub ay aayaam leeruk ay aayaam nee na loolu jalgatikat yi képp ñoo koy weddi ay téere nag bindoon bu yàgg ne alxuraan am na loo xam ne dañ ko faa junj na moo koy leeral. loolu nag ñi di ko jàngal nit ñi njañu koy jàngal ñu leen di tuddee ay boromi xam-xam di leen jox ay titre ñu ñëw toog jàkkaarlook nit ñi di répété loolu te la ñuy répété di seen musiba di musibaay ña ko bindoon nit ña koy diglu ku ci amul sa xel yow it tàbbi ca musiba googu yow it di ko répété gëm musiba googu jàpp ne yow loolu mooy dëgg dund ci ba dee ci soo yegg ci kanamu sa borom di am jafe-jafe su yàlla defalul ndimbal ba yela fi bala nga de ci xetu wax yu bon yoy nga xamne mom lañuy wax ci tereb bi yàlla yàlla ne tere bi lu leer la yàlla ne tere bi lu leer la ay nit bind ne téere bi amna lo xamne dañ ko fa junj leereewu fa dafa soxla lu koy leral moy nit ñooñu kon ñoom weddi nañ yàlla ci saasi nit ñooñu ñoom weddi nañ yàlla ci saasi yow it nga jàng loolu jëfandikoo woo sa xel demoo jëfandikoo li la yàlla waxal boppam ci téeréem muy settantal kem ni mu ko waxee ci suuratu saad aaya 29 suura 38 aaya 29 kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun li yaddabbaru aayaatihi wa li yatazakkara ulul albaab ab téere bu ñu barkeel wàccee ko mu jëm ci yow ngir ñu settantal ay aayam ak ngir borom xel yi fàttaliku yàlla wax lii ci biir alquran nii laaj ne waaw afalaa yatadabbaruuna alqur'ana am ala xuluubin aqfaaluha ndax yéen da ngeen dul setantal alquran wala bok seeni xol dañ ko kaste xam nga xol bu ya xam nga xol bu yàlla kaste kep tam ni ko yàlla waxé ci alquran waxon ko yonent bi wa minhum man yastamihu ilayka وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا متكلا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلوك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين نونك يالا الله سورة أنعام nga xam ne dañ lay déglu sax ngay wax waaye yàlla def na ci seeni xol maam yàlla tëj na seeni xol tëjin woo xam ne yàlla wax wa jaalna ala xulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi aadanihim waqra noonu la ko waxee yàlla moo tëj seen xol sañ seeni nopp an yafqahuhu wa fi aadanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yuminu biha nga xamne so len leen bépp ay yit duñ ko gëm yàlla naka la meune tuddé ab téeram al kitabul mubin ay nit bind ci ay téré ne téré bi leerut ba dafa soxla lu koy léral yàlla tuddé ab téeram al kitab mufassala téré buñu faram fàcce bi ci afa ghayra allah abtaghi hakaman wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين متكي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم waaye lam ca teg wa in tuti akthara man fi l ardi yudilluuka an sabilillahi in yabtabihuuna illa zanna wa in hum illaa yaxrusuun loolu nag mooy li dal nit ñi mooy loolu nekk ci maanaam sootu an'am nga xam ne ku mu soob nga tàmbalee ci aaya 112 wa kadalika jaalna li kulli nabiin aduwan shayatin al insi wal jinn ci aaya lu commencé ci aaya 112 ba yegg ci aaya 116 aaya 116 bi lan la yàlla wax Soto topé lu upp ci ñi nekk ci suuf dañ lay réer ci yoonu yàlla ndax defuñ lu dul topp ay njort ak di sos ay kàcc ndax ku fi toog ne alquran nangam nangam nangam nangam suñ la laajoon ndax yow alquran téere bi mës ko koo seetantal ba bu mat donte benn yoon la li ngay wax mooy déedéet ndax wax yi nit ñi di wax ci alquran ku dellu ci alquran seetantal ko di nga xam ne wax yooyu wérut fenn fenn la wérut fenn te sax dangatul maanaam kuñ maanaam tur buñ la mës a jaay ndax day wax ne gars yi ay tur lañ ñuy jaay naan ay diw waxoon na ay imaam diw waxoon na ay imaam diw waxoon na ay diw waxoon na yooyu rek ci lañ nekk ay tur la yoo xam ne kenn xamu leen kenn kenn xamu leen ñi lay wax Buxaari sax xamuñ Buxaari ñoom sa boppam Buxaari su ngeen delloo ci téere histoire yi lañ ca wax loolu ku am xel munoo jox crédit benn wax bu mu mën a doon bu mu la rapporter koo xam ne nee nañ deux cent ans ginnaaw yonent bi moom bàyyi ko na fi ba mat deux cent trente neuf ans la ñuy njëkk a gis téere boo xam ne dañ koy askane la Buxaari nga xam ne juróomi téeméeri at ginnaaw bi fi yonent bi bàyyi ko njëkk a gis téere boo xam ne dañ koy askane la Buxaari juróomi téeméeri at cinq cent ans nga xam ne au douzième siècle treizième siècle grégorien ci la ñu njëkk a gis téere boo xam ne dañ koy askanale ku ñuy wax Buxaari te téere boobu la ñuy wax ne moo gën a wér ginnaaw téere bi àlla cinq cent ans après ay nit ginnaaw yi tamit ñoom ñëw canoniser ay téere comme ni ko catholique yi defee de ci seen quatre évangiles yooyu noonu la ko sunni di defee ci seen i six téere tuddee ko li comme ni ñuy wax kutubu sitta six livres canoniques comme ni ko catholique yi amee noonu lañ ko amee ñu ñëw di rapporter ay nettali ay nit sukkandiku ci loolu di weddi ay waxu yàlla téere bi lu leer la ñu ne leerut dafa am lu dafa soxla lu koy leeral téere bi yàlla mu ne da koo faramfàcce ñu ne déedéet faram-fàccewu ko am na loo xam ne da koy mëmbëstal comme ni ma ko déggee kii wax ci ojo bi wax na ko <laughs> am na loo xam ne yàlla day ñëw mëmbëstal ko maam da koy indi en gros su koy indee en léegi ñu ne sunna moo koy détaillé yàlla kon en lay jaay moom mënta détaillé moom en lay jaay am na loo xam ne da koo indi en ay atte wala nangam te loolu wér jegewut loolu wane nañ ko ci vidéo yi ñuy def wane nañ ko ci maanaam wane ay li yàlla jàngale lu leer ci mbir yi nga xamne ñom dañuy wax ne wu ci téré bi la ca yalla jangare mu doon lu wër indi nañ ko ba mu leer lañ cey dolul seen bop seen yëfu bop la manam di diisel mbir yi ak di ray ay ñuñ warta ray ak di def luñ warta def ci nit ñi lo xamne yalla santane santaanewu ko te wax ci bir alquran ne wa lam yahkum bima anzalallah allah fa ulaika humul kafirun wax tamit fa ulaayka humul faasixuun wax tamit fa ulaayka humul zaalimuun ñi nga xam ne àtteewuñ ci li yàlla ji wàccee suñ borom mu ne ñooñu ñu weddi lañu suñ borom mu ne ñooñu ay tooñkat lañu suñ borom mu ne ñooñu ay faasix lañ muy ay jalkatikat lañ te yàlla ci boppam ci biir alquran ci sóotu baqara moo wax ne wal kaafiruuna humu zaalimuun way weddi ñooy way tooñ yi suñ borom wax na fi tamit fa ulaayka humul fasikhun ta suñ borom mo wax ne innal munafiqina humul fasikhun suñ borom neena ñi weddi way weddi ñoy ton kat suñ borom it neena jalgati kat ñoy nafiqi kon kep ko xamne ne yaa ngi àttee leneen li yàlla ji wacce suñ borom kon limu mu xam la ci biir téeréem moy kon koku ku weddi la kon moy kon koku ab nafiq la mu doon lu leer te lii nag lañ ñun lii lañ ñu ñun lii lañ donn ndax téere yi ñu gëm man man nag bokkatuma ci dëj naa ca bu yàgg waaye téere yi nit ñi gëm lu ëpp ci nit ñi gëm téere yooyu ci pas-pas bii lañ yóbbu nit ñi ci pas-pasu weddi yàlla ci pas-pasu naafeq lañ yóbbu nit ñi ndax lan gëm loo na leen ne am na ci loo xam ne du téere bi moo ko indi ba dafa soxla leneen loo xam ne mooy ñëw di faram-fàcce ay àtte yoo xam ne nee nañ yàlla da koo mëmbasal rek téere yooyu ñoo ko leeral loolu nag ñoom ñu cay sukkandiku di ci daganal ay deretu nit di ci sukkandiku di ci def nangam ak nangam ak nangam te loolu ñun depuis ay deux mille dix-huit ñoo ngi cay wax bari na àtte yi ñu fiy wax. ay di wax naan ko ko bari na ay àtte yu ñu wax lu mel ni maanaam ku mu dañ koy rey lu mel ni maanaam maanaam koo xam ne da am soxna soo njaaloo dañ laa war a rey ay wax yoo xam ne ñoom dañ koy wax ci seeni téere te soo demee ci alxuraan fekk yàlla jàngale safaanub loola ku toog ñetti fan julli woo dañ laa war a rey loolu tegtale wut na nak dañuy <laughs> comme ni ko nit ñi di waxee tegtale wut na nak dañuy encouragé ñàkk a julli déedéet waaye lu yàlla jàngale wut la ak yenen ni àtte ak ak lu mel ni ay ku toog ñetti maa xam ñetti àjjuma julli ji woo génn nga ci diine ji te seen julli àjjuma googu sax yàlla jàngale woo ak yenen ak yenen ak yenen ak te loolu ay nit ko yoonal ñu di ko topp te jëmmi topp gi nga koy topp képp bokkaay la ku dem sot shura aaya 21 fekk ko fa am lahum shurakaa'u sharahu lahum min ad-diini maa lam yazam bihillah wala da ngeen am ñu ngeen bokkaaleel ñoo xam ne dañuy yoonal ci diine ji loo xam ne yàlla joxewu ca ndigal te loolu yàlla joxewu ca benn ndigal nit ñoo ñag ci loolu la ñuy sukkandiku di saxal ne téereb yàlla leerul dafa am lu ñu fa di wax téereb yàlla leerul am na ca yoo xam ne leerewu fa dafa am yoo xam ne yàlla da ko fay junj rek am yoo xam ne yàlla da koy mëmbëstal rek léegi na moo koy détaillé moo koy faram-fàcce te yàlla tuddee téere bi téere bu faram-fàcce yàlla tuddee téere bi téere bu leer bi waxal boppam ci sootu naxli aaya 89 wa nazal na siban ci biir aaya ba wa nazal na alayka al kitaaba tibyaanan li kulli shay'in wàcce nañ ci yow téere bi muy ab leeral ngir bépp mbir yàlla wax ko mu doon leer nañ ñoom ñuy ñëw di saxal safaan bi te loolu di weddi yàlla gu leer te ku ko gëm ku ne waxuma sax nga koy wax waaye ku ko fas ku ne weddi nga yàlla waxuma laa sax nga koy fas ba pare di ko wax ku ko fas rek ku fas ne téere bi leerul am na loo xam ne yàlla da ko faa junj képp weddi nga yàlla ku saxal ne téere bi am na ci loo xam ne yàlla da koo mbëmbëstal ba dafa soxla lu koy faram-fàcce weddi nga yàlla rawatina sax li gën a garaaw ñuy wax na sax am na aaya yoo xam ne ay xaddis ñoo koy man suuxal <laughs> mais c'est extraordinaire gars yi liñ gëm lii mooy li ma wax sànq ci njëlbéen gi li ñuy wax ne science sans conscience n'est que ruine de l'âme lii moo koy firndeel loo xam ne ñoo ngi ko jàppee xam-xam te ñu ne xam-xamu diine la te pas-pas yañ ca gëm yëpp weddi yàlla la nga xam pass pas yeen ci gem gëm lu leen ni génnee ci diine la ta fuñ toll nak di joxoj ay nit naan yéfer yaak nangam yaak nangam ta xamuñ ne ñom pas-pas bobu la ju taxawé ci diine yalla pas-pas bobu lañ ca taxawé ndax weddi kàddu yalla weddi gi bobu loolu lañ ko xam de diine weddi gi xam ngeen lan la weddi yalla la diine weddi gi weddi kàddug yàlla la ku weddi kàddug yàlla ku weddi la te nit ku mën a doon ku mën a wax ku mën a doon ab téere bu mën a doon ku ne soo ko weddee yàqut sa pas-pas lenn sa digganteeg sa borom soo gëmee waxu yàlla lenn laa téere bu mën a doon nag bu mën a doon ak ku ko mën a bind ak turwa lu ñu ko réyal réyal ak lu mën a doon ku mën a doon ak téere ba téere bu mën a doon su la neexee nga weddi ko ak xel mu dal te du yàq dara sa digganteek sa borom weddi completement lu mu wax wérut taxul a weddi yàlla yàqul sa digganteeg sa borom ndax yàlla dala koo gëmloo wuddi te du la ko laaj ëllëg lu mu lay laaj ëllëg mooy ab téeréem nu mu ko waxee woon yonent bi fastamsik billadi uxiya ilayka innaka ala siratin mustaqimin wa innahu la zikrun laka wa li xawmika wa sawfa tusalun ci sootu zuhruf aya 43 44 sootu zuhruf mooy aya 43 nga dem ci aya 43 aya 44 yàlla bennub téere la ñuy laaj bennub téere du ñaar bennub téere la ñuy laaj téere boobu ci la ñu ngoyloo téré bobu lañu top lo kon yeneen wax yi nit ñi di sukkandiku bam jaral leen ñuy weddi téeréb yàlla ngir rek bëgg a saxal loo xam ne aada la juñ fi fekk ay nit gëmoon ko gëmoon na loolu mooy diina ndax loolu lañ leen indi loon ñu indi loon leen loolu ñun ñëpp ci loolu lañ judd loolu lañu gëmoon nga dem ci yàlla di ko settantal xam ne lañ la indi loon wérut légui yow mi nga xamné yow ya dem ba gis né li wérut ndax yalla dafa jàngale ay wax yu worok la la jàngaloon ca lola ndax da ngay wëy di sax ci lolu japp né ñi ñëw naan la lañu indi lon démb wérut ndax yalla li la wax nga né ñoo ñu yow say non lañu wala say adversaire lañu wala say rival lañu mais ñoom da la ki ñëw naan la li la yalla wax te dafa weddi la ma xam maa day weddi lañ ñu jàngaloon démb kooku kay dëgg yow dëgg-dëgg kooku moo la yéene njëriñ kooku moo la bëggal njëriñ ndax langa gëm soo ca saxee ba dee sa musiba la su fekkoon ne yaa ngi doon dund yàlla dogal ne yenn nit ñëwuñ di leen xamal ne ah lii ngeen gëm kat njuumte la su boobaa sax ñu xam ne yéen da ngeen topp dara ci ليالا وخ انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب بفا ايه بوبي اك لام تيك وليست التوبه فيم تولني وخ يي ني وخ ديكو ديلو سي تيريب يالا دي جوخي ريفرنس نيت كو نه دم فيريفيي كو كيب كو ديغلو باج صح تا لاغا ساخون تا ايه با تا توب غاي جيم دي وليست التوبه غوغل سي غاي جيم lilladina yacmaluuna sayiaati xata ida xadara ahaduhum al mawtu xaala inni tubtul aan di wax naa xaala inni tubtu laana ñooñu ci loolu la ta ñooñu ci loolu la ñuy subaa ci loolu la ñuy daanu de wax yi ñuy wax nii di ko delloo ci bi yàlla kenn ku ci ne mën koo vérifier gisal ko sa bopp xamal ko sa bopp képp ku ko bañ wala nga weddi ko du ñun nga nekkul ñun suñuy wax ngay bañ nekkul ñun su suñuy wax ngay weddi sa waxu boroom ngay bañ sa waxu boroom ngay weddi te loolu soo ko defee ëllëg koo koy layool sa borom nga koy layool li ñuy doon ci yow mooy seede rek mooy lu mën a xew ah déggoon na ko de jotoon na ko seede boobu de la ñuy taxawee ci yéen allah déggoon nañ ko de ndax waxoon nañ ko kon am na ci loo xam ne dafa mat a bàyyi xel téere yi la wax ci alxuraan ku ci bëgg a xam ndax lu wér la wala lu wérul dellul ci alxuraan xool lan la wax ca boppam loolu ay nit mësañ ma fee woo koo xam ne day wax ne dañuy day wax ne ab benn sénégalais bu ma xam mu mës woo koo xam ne day wax ne ab athée la bi ma ko jotee ñuy waxtaan mu may fekk ñoom ñaar dañ doon waxtaan seen waxtaan wi déggoowuñ kooku ne ko xaaral ma am ko ma woo ngeen waxtaan xëy na moom dina moom dina la moom dina mën a wax ak yow ci li ngay wax. bi ñuy wax kooku indi yim gëm nangam nangam mooy comme préjugé yi nga xam ne mu ngi juddoo ci li nit ñi di waxal li nit ñi di wax ci alxuraan comme téere sunnit yi la ñuy wax ci alxuraan bi waxee ba pare ma ne ko mbir soo ci bëggee xam dara ma ne ko ci misaal su ma su su nit ñëwoon ci yow ne la diw mii kat nangam ak nangam ak nangam ak nangam te yow nga xam diw. ndax yow da ngay sukkandiku ci nit ñi lañ nga wax ci diw wala da ngay dem ci diw laaj ko moom mu waxal la boppam ma ne ko alxuraan la ca nit ñi di wax la gën a wóor mooy la muy waxal boppam da ngay dem ci alxuraan nga déglu la muy wax ca boppam su boobaa yow di nga xam ndax la ko nit ñi di waxal wér na wala wérut mais nit ki su fekkee ne yow danga ngaa bëgg a doyloo la nit ñi di wax ci alxuraan. te yow lajal laajal sa bop alquran lan la wax ci boppam mais lolu jafe-jafe la mëno caa sukkandiku di até dara te nit ñi ñi tuddé borom mi xam-xam fi ci lolu lañ nek ñom lañ leen wax ci alquran te ñaleen ko wax ñoo gëna jafé jafe fuuf mi téere yooya mi nga xam ne moo yaatu mo gëna tasaro lamu wax ca loolu lañ waroon lijjanti ji ginnaaw bi leen téere yi waxee ndax la ndax la waroon mooy balaa ñuy dem xooli kenn la muy wax ci alxuraan dañoo waroon a lijjanti li alxuraan wax ci boppam ba pare. su boobaa suñ demee liiri la téere yi di wax ci alxuraan loolu moom dañuy ñëw football ko mu dalifee ndax dañuy xam ne du wax yu tegu fenn ndax alxuraan la mu wax ci boppam lu leer la te kenn ku ci ne yaa koy vérifier sa bopp ca biir téere ba. waaye la ñuy def mooy da ngay jàng alxuraan bañ na mokkal nga ko ñu ne la léegi da ngay jàngi xam-xam la ngay jàng ci xam-xam ñoo naan la alxuraan nee na lii alxuraan nee nañ ca nangam alxuraan nangam alxuraan nee nañ ca nangam alxuraan lii nga gëm loola nag ba yow alxuraan soo ca demee loolu sax doo ko ca lijjanti njàngum barkeelu nga fay def ngir dem maanaam di góobi ay tuyaaba loolu nga fay defi jàng naa ñetti isib jàng naa ñaari isib jàng naa fukki isib jàng naa fukki isib ak juróom jàng naa ñaar fukki isib jàng naa ab kaamil loolu ngay jàpp ne alxuraan looloo ko tax a jóg te alxuraan suñ borom da ko wàccee ci ñun mu doon ab risaalaam doon ab lettre bu ñu war a xamal naka la ñu war a dundee ci kaw suuf ñu war koo seetantal mu xamal ñu naka la ñuy dundee ci kaw suuf ñu mën a dundee noonu ba mën a réussir suñu dund ci kaw suuf waaye fexe ba. jël téere boobu nga xam ne moo waroon a moom moo ñu war a fi ñu war a jaar seytaane ñëw dugg ci di ñu ko wéyloo ka di ñu ca wax yu kenn xamut ñuy def ay concours wëy alquran mooy la ñuy tuddee tajwid rek di di def ay concours wëy ak nangam nangam def yu kenn xamul ba nga xam ne message ba ca boppam wutuñ koo bàyyi xel li may faral di wax nit ñi may leen ba ngeen juddoog léegi kat ngeen mës a gis ñu yónnee ko ab lettre jéemuta lire lettre bi xam la ca nekk waaye dafay ñëw di woy lettre bi may leen fu ngeen ko mës a gis soo waxee ñu ne fenn maa ah déet fenn yéen koy def di tajwid bii ngeen di def lan la ñu yónnee leen ab lettre jàngu leen lettre bi ngeen taxaw di ko wëy ba pare sax di def concours ku gën a neex baat ca ci lettre ba. léegi nag ay téere yoo xam ne fee lañ nekk ñoom duñ lettre ci yow kenn tegtalu la téere yooyu te yow téere boobu te téere yooyu kenn du la ko laaj ëllëg amul la benn njëriñ sa kanamu sa amul la benn njëriñ sa digganteeg sa borom léegi nag nga dem sukkandiku ci loolu ñëw di bëgg a saxal loo xam ne kenn xamul lu mu doon. te li ngay saxal lépp sa musiba la li ngay saxal yépp ak weddi yàlla la est ce que loolu matula sóor ah kon nag wax dëgg yàlla nañ bàyyi xel ñun li ñuy wax képp kuy dellu ci alquran te yem ci fi ko yàlla yemloo te yem ci fa ko yàlla yemloo du ca yokk du ca kum ca mën a doon ku ne la muy wax ñam koy waxal lam leeni wax seen njëriñ de ñoom seen bopp ndax kat sa borom lii la la wax te la mu wax fii la ca yem képp ku la koy wax soo dee borom xel war ngaa xam ne kii kat mooy ki ma bëggal njëriñ sama diggante ak sama borom képp ku lay wax naan la ñooñu bu leen leen déglu ñooñu nangam ñooñu li ñuy wax taxawul ndax nangam kenn mënu koo weddi sunna kenn mënu koo weddi hadis kenn mënu koo weddi te yow lañ lay wax ken munu ko weddi kenn gëmloogu la ko balaa ngaa mën a wax kenn mënu koo weddi da ngaa ndax dañ la ko gëmloo ba pare. xadis yi ngay wax kenn mënu koo weddi balaa nga wax kenn mënu koo weddi da ngaa waroon lijjanti ndax dañ la koo gëmloo ba yi ngay wax noonu kenn mënu koo weddi kenn dala koo gëmloo wut kenn gëmloowu la ko lañ la gëmloo mooy téere bi nga romb ko fa naan nangam gee kenn mënu koo weddi te foo waxee ne nangam gee kenn mënu koo weddi yaa ngi weddi lañ la gëmloo yow ndax la ngay wax ne kenn mënu koo weddi day weddi yow lañ la gëmloo waaw kay la ngay wax ne kenn mënul koo weddi moom day weddi lañ lay gëmloo day weddi lañ lay laaj ëllëg kon nga xam ne kay inconscience bi may wax mu ngi noonu li ñuy wax science sans conscience nekk ruine de l'âme kon ngeen gis ne ñun ci inconscience lañ ñuy doxloo ci inconscience lañuy ñuy doxloo inconscience boobu nag ñu ñar cee dund ma ñun ñu nar cee dund ba dee. suñ waxee ñu naan waaw ñii li ñuy wax nii nangam nangam te ñii waxaguñ la sa wax de leen ñoom seen wax waxuñ leen seen baay lii la wax waxuñ leen seen maam lii la wax dañ ne lii la yàlla wax fii la ko wax waaye nit ñi lan la ñuy fexe waaw ñoom seen sëriñ wala ñoom seen kilifa wala seen nangam damay wax ab muslim damay wax ne lislaam lu tax mu neex dellu ci téereb yàlla lu tax mu neex mooy nit ñi individualité yi lay responsabiliser diine yàlla amul ay sëriñ ak taalibeeg nangam nangam yooyu amu ca loolu nit ñee ko créé ngir bëgg a not ñenn ñi di leen maam am di dund seen kaw loolu amul ci islaam islaam loolu amu ca islam kenn ku ci ne yow la sa diggante ak sa borom nit nag mën na laa fàttali nit mën na laa bàyyiloo xel waaye dañuy ñëw ñu jàpp ne ñii di wax li ab kuréel la bi ñuy wax xuraaniya ña ca nekk ay xuraani yuuna lañ te fekk ne loolu taxawul fenn kenn mënta dellu ci téereb yàlla di bokk ci ab kuréel bu tudd xuraaniya di nekk ab xuraani loolu mënul nekk waaye da ngay ñëw di leen wax li yàlla wax yow ñu bëgg laa cloîtrer ci benn kuréel nangam te yow loolu intéressé wu la li la intéressé mooy li yàlla waxal li yàlla waxal boppam te loolu lañu ñu toppaloo te nee na bu ñu topp lu dul loolu di ko def wéeruwaay comme ni mu ko waxee ci sóoratu Aaraaf ci aaya bu njëkk ba sax ba ci aaya ñetteelu aaya bi ci ñetteelu aaya bu ne ittabihu ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabihu min topp leen li ñu wàccee ci yéen mu tukkee ci seen borom te bu leen topp lu dul di ko def wéeruwaay ñun ñi nga xamee nag yàlla defal nañu ndimbal ñun ñu topp lu wàccee li yàlla wàccee ci ñun te toppuñ lu dul di ko def wéeruwaay ñu naan ñuy yéen waaw yéen nangam yéen nangam ña xam ne nag ñoo topp leneen lu ñeen topp loo wut jàppee ko wéeruwaay ñoom ñii wut a joxoñ ñi ñaaj maan di jàpp ne ñii dañoo xanaa kay réer foofu la mën a yem sax topp luñ la topp di ko def wéeruwaay ka topp lañ ko toppaloo def ko wéeruwaay yow nga ne léegi ka topp lañ ko toppaloo def ko weeruwaay moom mooy ki réer te yàlla loolu ne moom te yàlla wax na loolu moom mooy ak gindeem moom فإما ياتي ينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإما ياتي ينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يدل ولا يشقى لي لا يعلى jàngale القرآن بينك سورة nekk بينك سورة طه ku dem ci sotu zumar aya 23 yàlla bima mu allah allahu ahsan al hadith kitaban mutashabihan mathaniya taqshahiru minhu juludu allazina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa xulubuhum ila dhikrillah lum jate zalika teg huda allahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had léegi ku dem sotu zumar mi sura 39 aya 23 yàlla wax ne moo wàccee gën jaa rafeti hadith mo xam ne ne tere bi da dem ba ci suuf mo ne loolu moy gindik yàlla ay nit topp gindik yàlla ngeen ñaan ñooñu la yéen ngeen naan ñooñu dañoo réer te yéen ñiy wax ne ñooñu dañoo réer yéen a ngi topp leen kenn toppaloo te yéegu leen ne yàlla wax na fi imma yaati yannakum minni hudan fa may tabaan hudaaya fala yadillu wala yashqa mu ne ak gindeem suñu dikkalee nee na ku topp gindeem googa du réer sa du texee di ñu topp gindik yàlla yéen ngeen topp lu kenn xamul tuddee seen bopp ay tur yu leen tuddee seen bopp ay tur yu leen kenn tuddeewul ngeen jàpp ne ñii ñëw di leen wax ne leen tee ngeen a topp liñ leen topploo tee ngeen a yem fi leen yàlla yem loo ngeen jàppee ñooñu ay noon wala ngeen leen di jàppee ay wujj wala ngeen leen di jàppee ay nit ñu réer wala nàngam loolu koy mooy wane loolu mooy firndeel li ñuy wax science sans conscience nekk ruine de l'âme mais nit koo xam ne yàlla defal na ko ndimbal mu conscient bàyyi xel boppam xelaat mais kooku kay war naa mën a xam ne wax dëgg yàlla nit li ko borom bi toppaloo ne ko bul topp lu dul loolu di ko def wéeruwaay su ko toppee ke mënta réer ki topp lu dul loolu kay moom mooy réer kon kat baax na nit ñi di xalaat de am na ci loo xam ne kuy xalaat ku ne yaa koy xamal sa bopp kenn du la ko xamal de dëgg du ñaar du ñett du ñeent dëgg benn képp la te kem li may wax képp koo xam ne jàpp nga ne am na loo xam ne ñii dellu ci alxuraan dañ cee nekk mii njuumte yow nga gëm na loolu wérul man de su dee man li may wax lu yomb la lépp loo xam ne ñoo ngi koy wax nga gëm ne kii mu ngi wax loo xam ne wérul ci diine nii nangam sama wax du ci sori lépp lu ma la wax dama lay indil preuve bi ne fii la ko yàlla wax yow soo gëmee leneen la nga gëm wax ma fi ko yàlla wax nit ki soo ne kii li mu nekk nii njuumte la wala point bi lim ci gëm njuumte la indil ko preuve buy wane nen loolu mu gëm foofa njuumte la dangay indi preuve bi teg ko ci table ji te kenn ni ma koy waxee ba keroog àdduna tukki du am ndax ñaari dëgg amut ñetti dëgg amut nit mënu laa wax mënu laa wax ab wax indil la référence bi ne demal nga vérifier ko sa bopp yow demoo vérifier wala sax nga dem vérifier gis ñoo naan waaw waaw waa kii lu mu wax sa dëgg la loolu alxuraan la yàllaa ko wax waaye nag ñoom dañoo réer <laughs> moo tax daal wax dëgg yàlla sant yàlla ñu ma man de wax dëgg yàlla su ma waxee te jëmmi yàlla tax benn pas-pas ak ben yitte ak ben yene mom la am moy pas passu ko xam dafa nekkon ci réer te gamu nekkon mu andon ci ak pass pas-pas ak ngëm daan ca sonn ndax loolu lañ ko jangalon, mu jàppoon na loolooy dëgg di ko wut koy dund di wuta selal, dem ba ben jamono suñu borom bolé ma ak ay nit ñooñu it ma leen yar ci loolu di leen digal ñu di ko sellal daan ca boole sax képp koo xam ne na nga ca waroon doxee soo ko ca doxeewut ma dàq la te loolu am na ay seede di dox nag ba yàlla suñu borom maanaam xiital la ci téeréem nga di ko settantal muy lam la ca sant ubbi sab xol ba nga mën caa yeewu yow sa bopp nga taxaw di ca yeete ak di fàttali ay nit di ca bàyyi xel te ba ngay tàmbali di ko def yow kenn képp la woon ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem gëm gi nga xam ne suñ borom defal na la ko ndax loo xam ne yaa ko gisal sa bopp nga di ca wax nit ñi di la diaboliser nit ñi di la attaquer di la. moo xam muy moo xam mu nekk ay attaques yu verbal wala nangam doon suñu waxee physique physique sax moom comme li may wax li may wax le temps même coow lu amoon en deux mille en yi ñoo doon génn naan def nañ ko lii def nañ ko laa te alors que en réalité loxo sax laaluma keroog ca bis booba ka fa gaañu woon ca ña nga xam ne ñoom ñoo fa ñëwoon maam ca la bokk yooyu yëpp nag nga koy def te benn jubluwaay rek nga ci am lii mooy dëgg nga di ci dox. te kau wax te jëmmi yalla kep tax ngir nit ñi bayiko ko xel ngir mën ca yew ngir mëna jëriñu seen digënté ak seen borom suñ borom dogal am nit ñoo xamne yalla defal na leen dimbal ñoomit ñu dem ba yeewu ci loola am na ñoo xamne lu jitu sax ñuy déglu man samay wax yalla dogal na pas-pas bobu ñoomit mom lañ amon mais wetel ci yalla wétal ko ci leppam ba ci ay cadeau ñu dox ba ak samay wax yalla dogal ñu dégg ko xamne li kat cadeau yalla nangu ko di ci dox nit ñooñu nag nga xam ne benn jubluwaay boobu rek lañ am mooy fàttali nit ñi li nga xam ne seen borom moom la leen wax wan leen référence yi wan leen preuve yi ba ñoom it ñu mën koo gisal seen bopp xam ne seen borom lii la leen wax nit ñooña nit ñi di leen wutal wutal ay ay étiquette wala nangam te étiquette yooyu lu mën a xew arrêté wuñu ndax teewul liñ war a wax ñoo ngi koy wax képp koo xam ne yàlla defal na ko ndimbal mu war caa yeewu dana ca yeewu te dana xam ne ñii kat woowuñ la ci ab dajaloo woowuñ la ci ab kuréel woowuñ la ci ab nit dañ lay woo ci téereb yàlla dañ lay woo ci diineb yàlla te yàlla li wax ci al alquran mooy wa man axsanu xawlan mimman daa ila allahi wa amila saalihan wa qaala innani min al muslimin ana kan moo gën a rafet yi wax ki nga xam ne day woote jëme ci yàlla tey jëf lu baax ba noppi di wax na mankat ci muslim yi laa bokk kon lii la yàlla waxal boppam jëf lu baax nak kenn ku ci ne mom yow lolu sa digënté ak sa borom la yow yaay sédel sa bop lola waye nak di wax ne waxaala inna nii minal muslimin wax deug yàlla ñun de sun pass pas-pas suñ yitte fofu la nek wote jëmi ci yàlla jëf lu baax mi jëf lu sel ba nopi di wax na ay muslim lañ te ci loolu képp lañuy ñuy nak te yenent bi lolu ko yàlla wax lo won mom ak ñamo andalun xul haadihi sabiliya adhu ila allah ala basiratin ana wa man ittabaani wa subhanallahi wa ma ana min al mushrikin lii de moom mooy sama yoon damay woote jëme ci yàlla teg ko ci preuve yu leer man ak ñi nga xam ne ñoo ma topp kon yonent bi ak ñamu àndaloon ci preuve yi lañ doon woote preuve yooyu nag lan la mooy téere bi wax na xad jaakum basairu min rabbikum fa man absara fay nafsihi wa man amiya fa alayha wa ma ana alaykum bi xafidin yàlla waxaat na fee ci sootu jaasina haza basairu linnaas te loolu wax basair la linnaas nee na haza balaagun linnaas nga xam ne yàlla wax na loolu waxati waxatiko waxatiko kon nag wax dëgg yàlla ñun suñu pas-pas ak suñu yitte lii la kon di fexe di wut ay nit ñoo xam ne dañ leen indi ngir ñu ne dañ ñuy dajji <laughs> loolu moom wax dëgg yàlla day wane batay inconscience moy science sans <laughs> conscience ne ko ruine de l'âme ci lo rek lay dellu ki lay wax ne li la yalla wax fi la ko wax demal nga vérifier ko sa bop nit ay nit di wax ne dañuy wuti ñu leen ni dajji wala ay nit di taxaw ne dañ leen ni wuta dajji terapi de moy dajji téré bi yalla rek <laughs> te téré bi yalla ku koy wuta dajji yow guerre bi du yow ak nit ñi yow ak yalla sa borom la kon deug ma sha allah mbiri mom macha allah dafa soriwul dafa jafewul te it dañ ko munut sax nag lii la yàlla fii la ko wax ku koy dajji fooy taxaw loo koy dajji yow yàlla nga bëgg a dajji di ak ay waxam te da nga ko dut mën loo wax du taxaw loo wax du cohérent te loolu depuis de années ñoo ngi koy prouver damay wax ne képp kuy wax lu wuuteeg li yàlla wax soo demee ci biiri waxam fekk fa ay contradiction te loolu dañ koo wane nag ba ci seen téere yi wax ma ay nit ñi wax fii ci réew mi fii de ci téere yi seen téere yi dañuy indi contradiction yi di leen ko wan dañuy wax benn wax képp ci biir wax ja da nga cay dem génnee ci ay contradiction te loolu wane naa ko ci vidéo yi wax naa ak ay nit wan leen ko ci seeni wax waaw kon nag mbir yi foofu la ñun man day personnellement rivaliser wu ak kenn noonoowuma ak kenn xëccoowuma ak kenn lenn man li ma ñor wax li yàlla wax te yem ci te loolu de muslim yii ñu nekk fii Sénégal te xam ma mën nañ koo seedeel seen bopp bañ naa ko ba lépp loo xam ne ay xeetu dajaloo laak organisation dama ko bañ dama koo contre depuis toujours position boobu laa ci am li may wax mooy daal képp koo xam ne yàlla dogal na mën nañ koo yee ci jottali ko waxu yàlla ba mu dégg ko nañ ko def te jëmmi yàlla ji képp tax mbir yi foofu la yem ku ci yeewu nag la ca topp yow la sa diggante ak sa borom koo ci mën a yee nga yee ci te jëmmi yàlla ji tax te loolu yàlla dogal na bañ tàmbalee wax ba léegi loolu la ñuy wax te ba léegi nii it ci loolu rek lañ nekk kon daal wax dëgg yàlla macha allah sant yàlla ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp aax te di leen baal te ñaan yàlla mu boole ñu jéggal jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum